mbokki seetaan Dakar Actu nuyu comme semaine bu jot si émission Débat question yi nga dafa soxal soxal askan wi encore langue politique bi euh, dalal ki nga docteur Babacar Diop. docteur Babacar Diop secrétaire général bu force démocratique du Sénégal les FDS alors docteur nuyu naa la euh, gërëm la sant la si invitation bi ak sa disponibilité. Daoud fay naa la euh, ma lay feeñal rek sama mbégte. Mhm. bu ma am ci dalal leen fii ci kër Guelwaar. Mhm. ak euh, jataay bi nga xam ne jataay ko aussi ak waa Dakar ak. d'accord Babacar c'est c'est très rare ñu gis parti politique boo xamante ni day soog a jóg amagut yenn doole parce que bu ñu waxee doole mooy amagu leen benn nomination politique exercer wu leen fonction étatique mais ngeen faire, bo amal seen i bopp seen i siège loo fa bëgg a waaw pas-pas amul lu mënul taxaw. pas-pas waaw pas-pas. Hmm. amul lu mu mëna taxaw amul lu mu mënul taxawal. Euh, dafa am ben leçon bo xam man bi may nekk xale dama ko jàng ci sama ben sama wéy jóg. Hmm. góor gi xabaan jóg fele ci Thiès. dañu amoon tool boobu amagul woon fas mhm. bu nawet bi jotee dañuy dem di liggéey mbokkam yi nga xamante ni ñoo koy dimbali dañuy bay seen tool ba pare mhm. doog ko ñëw di jàppale mais ci pas-pasam mhm. chaque suñu xëyaan dañ daan dem tool benn at ñu bay ba war a déqi gerte mm, suñu mbokk yi ñu waroon euh, déqil gerte ñoom nekkoon ci seeni tool mu xëy ñu jot ay illeer di deqi suñu bopp tool bi ñu naan paa bi de xanaa fi mu toll nii xel mi dafee ñëw chaque jour ñun ñu xëy di demal suñu bopp ba bis bi nga xamante ni ñoom ñi ngi indi seen i fas di ñuy jàppale si tool yi ñoom ñi ngi fa yegg si ay 11 heures ñoom bi ñuy yegg si jour boobu la tool bi di jeex muy leçon boo xamante ni soo waree tàmbali li nga war a def da nga koy def parce que booy xaar ay moyens doo def dara doo yëkkati dara. absolument et pas-pas boobu moo ñu topp ba léegi moo topp waa FDS engagement boobu ñu jàpp ni Sénégal amul lum ñu jaral. Mhm. Sénégal jaral nañu lépp. et lépp luy mandargaal parti politique rek ñun dañ ko war a am. Mhm. ndaxte dañu am yéene ci réew mi ñu am gis-gis ci réew mi. Mhm. ñu bëgg a wax ak waa Sénégal. et la ci jiitu woon parce que liggéey bi ñu bëggoon a def yaatu na yaatu goo xam parce que le mois prochain on va lancer l'école du parti suñu amul woon siège bi dañu mën lancer l'école du parti et ndax siège bi dinañu mën a permettre vraiment tabax parti bu mag ñu mën ko tàmbali. parce que dama am yéene. Hmm. tabax parti bu mag. d'accord tabax boo xam ne ay parti boo xam ne ay bànqaasam dina dina law. Hmm. ci biir Sénégal yëpp ak ci biir àdduna bi yëpp ñu taxawal parti boo xamante ni dina nekk demee un parti de gouvernement un projet pour mhm. euh, gouverner le pays mais aussi un parti de combat. D'accord. je parti pour aussi sauf que Babacar nous avons laaj jamono ji quand kan nous dit Babacar Diop <laughs> fan parce que nous professeur université nga am nga militants sa salaire nous satisfaire les besoins familiaux. Euh, narse compal yenn ay militant waro mën am si sama gis-gis lo xamantene ding ko ding ko louer ben permanence bu ni yaatu yaatuwee ni rafetee ni tamit. Euh, man kenn mënu nekk si sama gannaaw. ah oui en tout cas ñong koy laaj ah, question la bo xamantene ñepp loolu lañuy ñuy fu mu nekk ni kan mo nekk sa xadi mo lu ci ginnaw Sénégal ak ci xolu Sénégal. mais ban leader politique lañ bëgg wax wala ban institution mo nek sa ginnaw di la gungé prise de position docteur Babacar Diop ci langue politique ba nga xamé ba légui depuis hmm. JDS japp nga ni docteur Babacar Diop benn leader mën na nekk ci gannaawam rek lool dama la gay laaj rek. ah mais Sénégal lañ nek aussi. Babacar on a ngeen xam ne parti bi du parti docteur Babacar Diop. parti bi ay sénégalais ay boroomi xam-xam ci biir réew ak bitim réew. Hmm. ñen ñi di ay universitaire ñenn ñi di au cadre. de la république du Sénégal ci biir réew ñen ñi di liggéey pour ay gouvernement yoo hmm. xamante ni sax duñu gouvernement Sénégal nekk ci parti du parti docteur Babacar Diop ay ndaw ay doomu réew mi ñoo daje ci parti bi hmm. bokk yéné di tabax parti di ci def sen ñak di ci def sen xam-xam di ci def sen doole vraiment parti FDS le parti gelawaare yi la mais du parti docteur Babacar kon Babacar mo si gëna a rek mais waaw loolu moom chaque jour ma wax ko si jàpp naa ne bu doon xam-xam la du ma ko jiitee ndax ñu ma ëpp xam-xam rek ñoo ne ci parti bi mhm. te xamuñu leen mhm. bu doon alal la du ma ko jiitee ndax ñu ma ci ëppale ñu mën am ñoo nekk ci parti donc du parti docteur Babacar Diop te jàpp naa ni bu ñu yàlla may tuuti ci kanam rek yeeg mhm. ay weer di ngeen xam ni du parti docteur Babacar Diop ay ndaw ay doomi réew mi ñoo xamante ni dañu am yéene ci Sénégal am cofeel ci Sénégal bëgg Sénégal am xar kanam bu bes bëgg am Sénégal am taxaway bu bees bëgg ñu dimbali neew bu doole ñoo ñu ñëpp ñoo dajé ci biir parti bi jël jënd jëm ñu ngi tuddé docteur Babacar Diop ñu jital ko waaye bu parti docteur Babacar Diop. d'accord Babacar am na ñu bëgg xam tamit sa rapport ak Idrissa Seck. Idrissa rapport yu bax lañ am waxna ko barki dem sama magla, euh ñu bok dëkk Thiès. Mhm. ah yéen a bokk yéen a dëkkandoo Thiès. waaw ñu bokk benn quartier. Hmm. sampate ñu bokkandoo benn kilifa góor gi Ablaye Dieng ancien maire des HLM. nekk ndijaayam direct nekk suma kilifa aussi ñun ñi nga xamante ni ñëpp dañuy tos dañuy cosaanoo jóge Sampaate donc muy muy kon ñu am ànd ànd bu rafet. Hmm. ci élection présidentielle yi. Euh, jàpp naa ni li FDS liggéey ci coalition Idy 2019 li ma li ma ci jàpp. Hmm. moy coalition double XL boobu. Mhm. bu ñëpp defoon ni FDS taxawé taxaway bi FDS taxawé jàppoon naa Idrissa Konté do na nekk président de la République. Mhm. kon wax dëgg yalla ku mel non euh, mama bi may ànd Idrissa jafé na andal trop. Mhm. ku mel non mëno am lu rapport yu rafet. légui nak daf ni réew mi réew mi la. FDS FDS la. d'accord et ñom dañ am seen stratégie. am seen i Euh, ñu nit ñu am suñu ligne politique. d'accord suñu ligne politique. Mhm. naka jekk naka jekk mooy saa suñu askan bi soxlaa dañuy gis. d'accord saa suñu waree wax dañuy wax saa suñu waree xeex dañuy xeex.

de euh, travailler à la succession d'Idrissa Seck même si yombut ñu wax succession d'Idrissa sur la scène politique mu ah, est-ce que une stratégie la FDS la FDS il faut que niveau de nek non non non ah il faut ni hmm. FDS a identité avant dajeeg Idrissa di liggéey. oui mais politique lañ nekk Babacar. waaw mais dama au Sénégal aussi il faut nga nangu identité. ñi doon bañ démb ñoom ñoo nangu tey. mais il faut nga xam identité FDS depuis bi ñuy dans le mouvement élève depuis bi ñuy dans le mouvement étudiant man jour bi ma que dajeeg Idriss Seck leen rek laa ko wax. Hmm. je ne me suis jamais compromis et je ne me compromettrai jamais et ça je le lui ai répété trois fois man du ma compromettre politique jarul lu ma compromission maintenant suñu adhère. Mm-hmm. ñi ñi xam ñëpp dafa am ligne bu mm-hmm. parce que li yomb la première bourse étrangère que j'ai reçue j'étais élève au lycée le jour où ñi ma doon proposé bourse étrangère bi ñu ñëwee suñu kër suba tel tel tel avant 7 heures du matin. Mm-hmm. jour boobu bi may dem lycée suis dox amu woon sax fukki de bima ñëwé université Cheikh Anta Diop bu Dakar dama lay nettali ben histoire dama nek président de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines ma tok ben ngone sama téléphone sonné wa rectorat woma ma ni ma foonee indil sa carte d'identité dañ la wara défal passeport parce que da nga wara and ak le président wa da nga bokki délégation bi ko war a ko Genève hmm bo ñu affaire facture numérique la nekkone hmm. nga gungé ko man len kan man len da ngeen la juum de ñu ne ma wii da nga war a délégation sénégalaise bi. war a ànd ak Ablaye Wade. war a àndoon ci président Ablaye Wade boobu j'étais le président de l'amicale de la faculté des logiciens benn ngoon. Mhm. ma ni leen seet leen kaneen. j'irai à Genève mais ça ne sera pas avec le président Ablaye Wade. nga bañ a ànd ak Wade. dewuma pour pourquoi exactement. pourquoi non j'étais le leader du mouvement étudiant. waaw responsabilité yi ma assumé mhm. may proximité avec ak président Ablaye wad bi ngor bi ngay wax nga effectivement parce que beaucoup won suba caméra RTS yi ko président gis docteur Ba gis Babacar Diop étudiant ci ginnaw mané à Genève mais ça ne sera pas.

bu baax baax parce que Idrissa ku am expérience. Mhm, politique mhm. euh, jàpp naa ni man Babacar Diop mënu ma ko gën xam politique. ma nangul ko ko mais nag nañu waa Sénégal nangul ñu nit suñu identité ndax moom Idrissa nangul na ma lool. d'accord et je pense que loolu ci am solo. Mhm. vraiment sama diggante ak moom amul dara lu la. rapprochement politique en perspective. rapprochement man ak kan. yow ak Idi. mais musuñoo musuñoo taqali ko. c'est-à-dire Réumi, c'est nami, xam nga c'est Réumi, vraiment parce que bu euh, FDS c'est FDS d'accord maintenant dans la coalition Idy 2019 ca mais dans leur grande alliance là franchement de grandes bokko Non, grande alliance Non, grande alliance lan motax tax Babacar nekkoo parti d'opposition non wala da ngay xaar ñu woo la

détails bëgguma ci ñëw. non mais faut ñu wax si parce que parce que parce que c'est très important. Nous xam kan mooy Babacar ak li ngay incarné aussi. Oui, mais booba daje ak le président de la république parce que génn en prison université pour mobiliser ou bon peut-être am na ñoo xam Sénégal y nañ ay rapprochement waroon na mën a am suma diggante ak président donc ak moom qui est jeune euh, dara jomb ci mi. Hmm. voilà bon ils l'ont tenté c'est des discours sénégalais. Euh, donc lan nga soxla lan nga bëgg tay ji soko ko au moins président dimbali na ay nit man nañ la dimbali mais c'est ne pas connaître Babacar Diop diko nga ah pare nga bañ ba teud ci souf non man lumay daw bay daanu <laughs> dégg lu la wax. d'accord la première bourse étrangère bima ma am. d'accord ñi ma ko doon proposé ñi ngi may dégg ñi ngi ci dans le régime actuel ah bon bien sûr Le gouvernement bi Ni ngi ci en tout cas Benno Bokk yakar bi bu baakha baax. ñoo yore woon nguur gi jamono joju wala. Euh, booba ci PS lañ ne woon. d' accord ngi may dégg bu baax. Mhm. keroog bi ñi ñew suñu kër. parce que boobu portable yi amagul won. D'accord. pour am chance fekk ma suñu kër suba teel lañ fa mëna ñew wala mhm. may génn. Mhm. ñu ngi fa ñew avant sept heures. première bourse étrangère bi ñu ma jëkk jox Kérok fukki dërëm parce que. boy dem gisee di jang fukki ko ngay ngay pass mais mais mais lepp day dox jamono di dox babakar ba loolu nek sa wërsëg maki maki recevoir la palais loolu wërsëg suba ñu jox la <laughs> non mais meun nañ ko considérer non meun nañ japp que ni sa wërsëg la won sama sama wërsëg moy lo xamni ne ñak muy sama ma am ko ci dignité sama wërsëg moy lima Sénégal lima Sénégal sedd hmm. sama sama sama wërsëg moy sama sama ñak mais ndaj ak ma amul lu ma meuna jox Macky Sall ah, mais mën na la jox post électif. su ma soxla woon ñu élire la tey nga nekk ministre ñu naan oui Babacar oui Babacar Diop yokkal la si monsieur le ministre ay affaires yooyu. maintenant booy dem dañ lay garder Babacar privilège boobu bëgg nga ko. non non non loolu taxuma politique. man su ma soxla woon post du ma génn PS dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng eh, amoon naa ak moom ay divergence mais nag nit ku ma respecté woon la nit lu koo xam ne bëggoon na ma ci amoon na lu ma yéene. té suma jumur, dernier rencontre bu ma mujjé am man ak moom ak hmm. mam bu ma sall bu mag ci euh su fekkone poste rek la bëgg don na ko am ci politique bi ci PS ci quota yi PS di négocier bobu pour moom mu bir ci bir PS hmm. paré won na pour lijjanti lool man politique ma pour ay poste xeexuma pour ay poste suma ko bëggone am ko mais dédé damay xéx ngir Sénégal damay xéx ngir sama réew damay xéx ngir sama askan damay xeex ngir ñi jële fi néew doole ci réew mi damay xeex ngir Sénégal am xar kanam bu bees mais Daouda hmm. euh, xeexuma pour am dara parce que nag après tout suñu borom seetaanuma hmm. je suis universitaire hmm. am naa lu ma jàpp nag lu mu néew a koy bari am naa lu ma jàpp euh, kon mënuma xeex ngir ay post mais ñu nekk sa ginnaaw dinañ soxla dara Babacar euh, ñi nekk ci sama ginnaaw bu ñu joxee ministre jox la portefeuille nga mën a nome jël décision ñoom FDS ñom xam seen yéene. Hmm. wess na di xol ay mini poste ministre ak ak ay DG ki ay PCA seen beut wess na lool seen yéene ci Sénégal ëpp na lool. ñom xam nañ ko li tax ñi and ak docteur Babacar Diop du alal ndax docteur Babacar Diop amul lu mu leen jox du alal ñoom ñooy jël seen ñaq diko def ci parti bi. ñoy jël seen alal diko def ci parti bi jël seen temps diko def ci seen parti bi jël seen xam-xam diko def ci parti bi siège bi ku fi ñew respecté ñu. Hmm. ñom la sen taxaway ñom am nañu yéene ci Sénégal seen yéene ci Sénégal. Mhm. wess na vraiment. ay poste ay postes ministériels yi nga fi gis. wala ay PCA. wala transhumance donc ñun. Mhm. bu ñu jëndul woon démb ñu jënd tey damay lay nettali encore benen histoire. d'accord boo xamante ni pour rek moo wala suñu engagement dama am sama benn frère. bu mhm. nekkoon Genève. Euh, bobu maa ngi nekk leader du mouvement étudiant El Matar boobu Dakar jaxasoo trop ma xam nga man benn moment dàq nañu université. Mhm. mu jaxasoo trop bi ma bi ma récupéré waatee université ma ma ma jotaat sama inscription mu bëggoon ma ñëw fekk si ko fa jàng si. parce que mhm. boobu jaxasoo na trop. Mhm. mu def tout tout mu ni ma lii waaw yow bourse étrangère ngay bañ mais lii du bourse dama bëgg. dama bëgg nga ñëw sinon sa jàng mën na yàq sa gars yi mën na yàq sa jàng kii demee noonu ma ne ko non non loolu moom wax dëgg yàlla mënu ma jóge Dakar dans ces conditions là parce que su ëllëgee dañ naan bourse dañ ma jox comme ñëpp. donc mën nañu wax ne Babacar c'est un homme de principe ci principe boobu ngay doxee. même si politique mais mu dem woo sama pap mm-hmm. ma yow sama papa ñëw Dakar mu ne ma Matar de doon nañu wax expliquer ma expliquer situation bi wax ko sama position. mu ni ma xaw ma di nga dem xawma doo dem mais ñaar naa daal laa la mën a wax mooy nit ku ne. Mhm. booy liggéey ak say moroom ak say nawle. Mhm. war nga góorgóorlu ba boo génnee ci néeg bi. Mhm. nga ñëw ci ëtt bi. nga gis garab yi garab yi verte. muy nawet ñëpp jàkkaarloog garab yi xob yi vert yow nga génn ci néeg bi nga leen di tey jii da xob yi dafa zone war nga góorgóorlu ba ñoom du ñu am fitu contredire la dinañ ne kii lu ñu mus a wax dëgg la. d' je ne sais pas est ce que comprendre. comprendre naa bu baax hypothèse bi nga teg. donc <laughs> très bien ñi may liggéeyal. Mhm. muy depuis lycée muy collège muy université samay nawle la. D'accord. accord ñaanuma yàlla benn yoon ñoom ñu gën ma gore. d' accord gën ma gore mooy. Mhm. ñu wóolu ma jox ma seen kàddu wóolu ma jiital ma wóolu ma may mën dox. ci guddi ci yu bëri ñi ci ngi ko ci ci wu kóolut hmm. xëy xëy gis ni de docteur Babacar Diop mi ndakate ñoom ay intérêt d' accord taxoon na jóg d' accord si jamono boobu bi ngay bañ Babacar ngay bañ bu tëdd si suuf ne bëggoo poste ministre ñoo ngi ñuy wax gouvernement élargi ñoo ngi koy négocier si suuf nee nañ sax am na ay ténor de l' opposition yu mag yoo xamante ni ñoo ngi négocier suba ba ngoon nan la ñuy def ba bokk ci gouvernement boobu yow noo gisee en tant que acteur politique waaw man dama jàpp ni opposition Sénégal moom war na xoolaat taxawaayam. opposition bi. Mhm. ah ndax ñaara am. Hmm? Euh, ci démocratie dafa am li ñuy tuddee majorité. majorité. Mhm. day gouverner day doxal. Mhm. di jël ay dogal. waaye opposition dafay opposé wu di xeex di wax di taxawal askanam. waaye di naa di xalaat yoon yoo xamante ni su ëllëgee bu jotee réew mi war ko mën a doxal.

dañ ni ñom reconnaître ñu sax Macky Sall. absolument wax ni élection législative yi baaxul élection présidentielle 2019 mhm. cette même opposition qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ba tay ji ñay ba tay ji chef de l'opposition sur la base des élections législatives yu et de la présidentielle bo man wax ko Macky Sall bokk na ci ay chance am. Mhm. mooy opposition bi mu am. kon opposition bu nelaw la ñu am entre guillemets on respecte tellement l'opposition mais quand même ni ma gisee ngay wax qualificatif yoy rek lañu mëna joxé way opposition bi mu wax dëgg yalla dañuy nelaw opposition de salon la ndax <laughs> opposition da ngay taxawal askan di waxal askan wi. dinañ la mere de Babacar non man aw problème opposition mere ma ak ñàkk mere opposition de salon moom ah. man aw ci problème boobu xam nga man kenn rek moom mu mën a mere mu naqari ma mooy askanu Sénégal parce que aw ma beneen interlocuteur. j'ai qu'un seul interlocuteur. ñu gis Sonko génn na wax ci presse bi am na yeneen euh, parti bokk ci grande alliance bi génn wax ci télé bi nga ne on a une opposition dormeuse. oui euh, il faut reconnaître avoir l'honnêteté de dire que waa Pastef ñu opposé donc les mouvements sociaux dans ce pays. Hmm mouvement citoyen seen taxaway rafet na ci ci démocratie sénégalaise man ngay ni li fi di contestation actuellement ci réew mi <laughs> mouvement citoyen yoy ñoko ñoko ñoko incarner incarné ak ay quelques leaders yo xamanteni vraiment ñi ngi xeex euh, ci mi Thierno beaucoup yoy yep nangul leen ko mais banen opposition bi <laughs> nga xamanteni mo démon ci présidentielle et man doon na ma neex vraiment ñu ñu am taxawaay. Mhm. ci jàkkaarloo ak Macky Sall ci xeexal suñu démocratie. Idi nga waxal wala. no waxuma ak Idrissa Seck. demoon na bokk na ci mais waxut booba tey. Idrissa bu ma juumul conférence de presse bu mu njëkkoon def bi ñu joxee résultat yi ba tey je crois déggaguma ko wala. waaw man Idrissa li ma ci wax waxati naa ko dama jàpp ni ko am un million de voix dans un pays am vingt pour cent. nga jël deuxième ak condition yi élection yi amé ak hmm. condition yi mu ci bokké hmm. sama xalaat sama gis-gis mooy Idrissa war na wax il doit parler Ouais, c'est mon point de vue et c'est le moment ah je sais pas man ma réew mi <laughs> franchement mais mais citoyen nga kuy analyser non man je les faits sont là je ne suis pas un analyste politique je suis un homme politique <laughs> Hmm. analyse. Euh, mais da ngay décrypter situation politique bi euh, décrypter situation indiwuma fi. parce que homme politique nga aussi. proposer. Hmm. ay ay solution ñu ma fi indi. d'accord il, il doit parler. Son avis. Hmm. moi jàpp naa ni ak li mu représenté ci Sénégal. représenter ko ci opposition sénégalaise bi jàpp naa ni euh, am na taxawaay daal bu gën a bu mu war a mën a taxawee réew mi war ko taxawoo opposition war ko taxawoo ñi nga xamante ni ñoo voté ñoo ko voté. d' accord jamono jooju Babacar ñoo ngi wax statut de l'opposition. opposition vraiment Macky est fort hein l' opposition dort dans son salon comme ni nga ko on nous propose aujourd'hui le statut de l'opposition. Demba, opposition bi si biir sax ñoo ngi joxante ay coup de poing fu mu nekk nii war a xool kan mooy jël statut boobu noonu. waaw statut chef de l'opposition, opposition wax naa ko amadul benn njariñ askan amul njëriñ amul lu mu indil suñu démocratie. ah amul mi ngi ñëw ciow loolu ay 98 bi Ablaye Wade gi gañee nguur gi 2001 ci nouvelle constitution bi mu duggal ci le statut de l'opposition mhm. à l'époque wa parti socialiste ak wa AFP doon ci xulo bu suñu ci mhm. mais Ablaye Wade ba ko défé c'était pour gëna leur mel opposition ñu ba 2016 Macky Sall la constitution bi dugal ci statut chef de l'opposition mais statut chef de l'opposition du loo xam ne dafa mën a dooleel démocratie sénégalaise fi ñu démocratie bi li koy dooleel nit ñi xam nañ ko hmm. ndax nañ les assises nationales hmm. bañ jógee ci assises nationales yi def nañ commission de réforme des institutions hmm. la ca ay dogal dëgg dëgg dëgg war a mën a dooleel opposition war a dolel démocratie sénégalaise Macky Sall mi nga xamanteni signé won na la charte de la bonne gouvernance des assises respecté wu ci dara. Mhm. Macky Sall mi nga xamanteni ni jël na plus de 700, 800 millions mu def ko ci commission nationale de réforme des institutions. Mhm. donc rek xaalis boobu mu def ko ci liggéeyloo Amadou Matar Mbow. mu jël réforme yooyu tek ko à côté et pendant ce temps pourtant moom jëloon ay engagement ni bu gagné nek chef de parti que chef de l'État donc du du du am donc yoyu yëpp mhm. day wane ni mhm. euh limay wax statut chef de l'opposition euh, débat la bo xamante Macky Sall da ko rek mhm. euh, pour gagner a opposition bi pour gagner le nax voilà et pour que parce que soo xoolee dialogue bi deug deug ñaari mbir la jur ben moy libération de Khalifa Ababakar Sall Macky Sall mo jaay doole Khalifa Sall tëj ko bi élection yi jàllee bu mu ko bëggee génn mu woote ab dialogue baneen bi laneen li mu jur mooy dàq élection locale yi mhm. loolu la dialogue bi jur mais laneen lu am solo à part loolu mhm. loo xamante ni dialogue bi juróogul na ko donc man dama jàpp ni daal franchement wax dëgg yàlla statut chef de l'opposition amul dara lo xamanteni ni mën na ko démocratie sénégalaise. mais mais kiñ koy jox ñong koy dig 2 milliards jàppoo koku tamit dina gëna mëna taxaw dans ses positions politiques. waaw lolo tax mu gëna graw parce que bu féké yow da ngay xeex des institutions budgétivores. Hmm. ñu dem bani conseil économique et social dañ ko war a dissoudre. Hmm. dem bay wax ci suñu discours ni. au conseil de la république dañ ko wara a tas ndax alal jafa nek amul njëriñ hmm. mën na jëriñ nga bëgg taxawalat balen institution bu xamanteni dina jël 2 milliards hmm. lolu ñun politiciens buñ fébaré askan mi ñi déglu feebaruñu lolu japp na ni amul benn opposant bo hmm. xamanteni and nga ak sa xel bobu cadeau empoisonné Macky Sall jox la nga jël kon yeen andu len ci seeni parti yeen ah non non en tout cas débat chef de l'opposition, opposition moo quoi. intéressé wu leen euh, franchement euh, amuñu ci sax amuñu ci position ñoruñu intéressé wuñu. D'accord, qui c'est en Dakar Actu une émission Actu Débat moo ngi dalal docteur Babacar Diop nekk secrétaire général du parti bi di force démocratique Sénégal du FDR FDS les Guelwaar alors Babacar dañuy xuusaat actualité bi euh, mbënd bu ñu inondation yi nga xamante ni laal na Sénégal partout presque dans les grandes villes gis nañ que ni beaucoup de familles aujourd'hui euh, ñoo ngi ci ay difficultés fi ci Dakar gis nga li xew Keur Massar gis nañ Babacar def délégation dem ba Keur Massar di dajeek askan wi alors mais ñun Babacar lu ñu bëgg xam moy est-ce que nekku leen yéen di politiquer situation naxar bi nga xamanteni askan wi mo ngi koy dund. parce que sénégalais il faut ñu xam lu ñu bëgg. Hmm. euh ñi waxit il faut ñu ñu xam li ñi wax. Hmm.

man ma dem Kër sar gisal sama bop ma fa kadem, a dem. Mhm. après la fa gaay yi nga xamni ne naka da ngay dug jël gaal. Mhm. mu mel ni ku nekk ci fleuve. ku nekk ci fleuve mais lolu su amé ci rew question bi nga xamanteni mënu ñu ko ñakala moy alal ji fuñ ko dugal alal ji fan la dem lan moy jeexitalu alal joju dem Kër ma massawu leen. bokk ak ñoom seen naqar mhm. bokk ak ñoom seen wéetaay dalal leen defal leen nga ni lolu politique la wala politisé la mhm. ah bu féké lolu moy politisé dé <laughs> man dé maa ngi ci maa ngi ci biir kon. day yi nañ da ngeen di dem yóbbaale ay caméra def seen déclaration attaquer régime bi. non ñi sans apporter des solutions. non ñi yóbbu ay caméra donc man bamay may dem Kër Massar sama service de communication la la -hmm à ce niveau et ñu yóbbu camarade aussi lu leen neexee ñu ñu ñu def ko parce que li am solo. Hmm. mooy ŋàññi la fa xew ba àdduna yëg aduna hmm. gis ko ñi xamni li lii du dëgg du yoon. parce que hmm. waa Kër Massar am nañu àq. ci réew mi la ñu ay doomu adam la so soo demee Kër Massar. nga dem Jaxaay nga dem Colobane ci Rufisque da ngay xamni sen seen ci ci boppam sal salfaañe ci àq doomu adam ndax nit ku ne da nga am àq. dundu ci dundu bu dal.

muy ay proposition yo xamanteni japp nañu buñ ci japp buñ ci jall buñ ci jaré hmm. mën nañu génn ci ci ci ci ci ci mi kon. Hmm. ñun yamuñu ci ngagne rek waye ñun dañuy def ay proposition parce ñun liñuy ñuy stratégie d'opposition rek. Hmm. ŋàññi yuuxu xeex. taal pono wax fi suba ñun nekkuñu ci lool suñ ko waree def dañ koy def waye buñ paré ci lool dañuy tabax. d'accord ay proposition yo xamanteni ñooñu nekk ci les wala ñii nekk ci les mhm. wala ñii ñu ci seen suuf wala ñii bëgg a jàng lan leen ci FDS parti de gouvernement mhm. en même temps nekk un parti de combat D'accord. accord ñu euh, gouvernement bi di annoncé 750 milliards euh, ma leader opposition bi un manque de volonté politique de la part du gouvernement régler situation bi nga xamante Sénégal koy loolu yaa ngi koy partagé avis boobu. non c'est pire que ça parce que 750 milliards xaalis bu toll noonu soo hmm. assemblée nationale am ci réew mi ñi fal leen. Hmm. di leen jox carburant di leen jox auto, di leen fay salaire. Hmm. ñu sant leen saytu doxalinu gouvernement bi. lu mel noonu am ci réew mi. assemblée am nu mu ci war a assemblée boobu waroon a mën auditionné ministres yi nga xamante ni laal ci directeur directeur généraux yi wala chef de service yi. enquête parlementaire nga jàpp. waroon avant enquête audition waroon na mën am. Hmm. mais auditionné wuñu la. waaw mënoon nga def audition défaut wala nga def enquête parlementaire enquête amul. mais ñoom def nañ mission d'information. mission d'information, moi là. mission d'information ça veut dire ñu ne dañuy une mission d'information information bu ñu une ñuy recommandation recommandations au président de la république Moi, assemblée nationale tey bureau d'études le pour président de la république Lolo, moo tax que wan assemblée bi franchement. Mhm. taxawaay bi mu on a am amu mhm. ndax 2010 le mel nii bi mu fi amee Omar Sa, assemblée bu Doudou Wade nettali na mhm. dañ ko convoqué. te booba way juróom bu góor moo génn àdduna mhm. mais mu bàyyi fa dëj ba ñëw wuyu si Sénégal mhm. wuyu si askan wi donc jàpp naa ni audition wala euh, enquête parlementaire mënta ñàkk waaye mission d'information bi moom ñàkk a askan mi le motax tax vraiment Moustapha Niasse ak le bureau de l'Assemblée nationale taxawal. d'accord docteur euh, temps bi moom ñuy xoj ah fu mu nekk nii presque à terme de l'émission, mais foog ñu xuus gawar débat bi ñu wara wax aussi euh, tournée agricole bi nga xamanteni chef de l'État def nako deug na ñu bari ci opposition bi diko ngagn mais li jarul ngeen rafetlu ko ay paysans bay seeni tol bo jamono ji chef de l'État dem seet si euh, lolu du tourner économique tourner politique la. ah bon mais tourner économique lañu wax agricole sax Tourner agricole lañ ko tuddee. du Tourner politique la. ndaxte tourner bobu dama ci taxaw. tuuti hmm, hmm. mbass mi dugg ci réew mi nga tëj école yi université yi. Hmm, nga indi couvre-feu. jël ay policiers ñuy toroxal ay sénégalais Ni respecté wuñ couvre-feu ñi dem bañ askan wi dañoo xamadi dañoo yariwu yaree dugg. Hmm. yow mi nga xam yaa jël dogal yooyu pour yar askan wi. Hmm. pour aar askan wi ngir yiir askan wi yow nga salfaañe loolu lépp li xew ci tournée Macky Sall ba doon tere rassemblement yow ngay defee rassemblement doon wax distanciation sociale nga ñëw respecté woo ko. ñu hmm. wane sa ministre de la santé moom mi nga xam ne moo jiitu ci xeex bi muy def ay rassemblement. ñi tëgg ka fecc di woy ñu naan ko Diouf saar warooñu xaw ma ndax Diouf Sarr war na leen ñoom ndax ma ngi leen di jox ceeb ndax ma ngi leen di jox diwlin di leen jox xaalis waaye Diouf saar ñun war nañu ah waaw kon président de la république tournée politique la doon def te turne boobu hmm. dafa am lu mu feeñal li mu feeñal hmm. mooy ci wàllu koom-koom économie hmm. mooy Macky Sall lajj na ci Nous nga dox ci hmm. ndax autosuffisance alimentaire autosuffisance alimentaire en 2014 dafa lancé benn programme PNAR hmm. programme national d'autosuffisance en riz Nous hmm. def ci plus de 70 milliards xaalis boobu fan la dugg te amaguñu autosuffisance amuñu autosuffisance ñu lancé PRACAS programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Mhm. Fixez-vous un objectif. Kimbaïmi. Yini, donc, saison où nous avons 60 000 hectares. Qui a 120 000 hectares. Nous avons que 2020, 50 000 hectares sont C'est ce qui dit. Bobo, on aussi euh, lajji beneen lajji boo xamante ni au plan de l'agriculture, agriculture. Mhm. lajji am na fa. Ah. autosuffisance bobu ñu waxone amul. mais beneen bi tourner bi dafa am ay questions yo xam ne Macky Sall waron na ko na ci wax parce que gouverner c'est anticiper. Mhm. am na ñu ni nawet bi neex na mais nawet bi su neexee. Mhm. d' abord ñu ngi neex ci baykat yi. mais baykat bi doon bay limu mu ba pare ku koy jënd lay jëkk a mhm. mais ñom waron nañ ci wax ba li ñu daloon ba ñu dal. mais il a ah. félicité le ministre hein. non nee félicité na le parce que yaa ngi def ay efforts yu considérables yo yo, yooyu c'est rassurant Babacar hein du félicité ministre suñu mbokk baykat yi all bi di bay seen guerte am yaakar ni léegi ñu léegi ñu récolté. Mhm. li daloon li ñu daloon c'est ce gouvernement doit éviter. Le gouvernement a fixé le prix du kilogramme de l'arachide, 210 francs. Les mhm. Chinois sont venus 250 à 300. Le gouvernement doit parler sur le prix. C'est ce qui fait que les a des problèmes. Si Sonakos a 1050 agents qui ont travaillé, les Chinois, cash lañ doon fay ba 300. donc mais tournée bi aussi dafa wane ni ci beneen côté aussi président lajj na ci moy industrialisation su may déggee seen dernier communiqué bi ñu ci wax. Mhm. mais ñom lan lañ def ci industrialisation deug deug deug deug damay jël exemple Sonacos bobu ngay rek nga xamanteni parce que gis nga émergence. Mhm. ak développement dañ koy wax. Mhm. mais mënta am lu industrialisation am. d'accord il faut. secteur primaire bi ñi articuler ko ak secteur secondaire parce que industrialisation mhm. transformation des matières premières sommes mhm. les premier producteur d'arachide en Afrique de l'Ouest premier producteur mhm. premier producteur tey nous ngay jéggaane diwlin xam nga Sénégal sommes premier aussi consommateur d'huile en Afrique de l'Ouest Nous avons 200 000 tonnes par année Qui 200 000 tonnes 180 180 000 dañ

loolu moo war a jeex boo xoolee Côte d'Ivoire mooy premier euh, euh, producteur du cacao. Mm-hmm. mais actuellement am nañ benn accord bu ñu am ak Chine ña ngay tabax ñaari usines yu bees. Mm-hmm. boo xam dañuy transformer cacao bi biir biir Côte d'Ivoire ndax loolu ci boppam. Mm-hmm. mooy yokk koom pom d'accord mais ñoom xamuñu loolu ay slogan ak discours ci boppam la ñu xam ndax soo jëlee ci côté industrialisation boobu. soo jëlee mille milliards nga def ko ci terre. Hmm. nga jël 300 milliards nga def ko ci BRT. mais tey jii bu pour yow amuñ xamuñ priorité bi. xamuñu priorité parce que industrialisation boobu. Hmm. transformation bi mënoon nañu ci jàppale tey jii fekkoon da nga defoon benn train. Hmm. chemin de fer Dakar ba Casamance. mais lay yàq ci mango biir Casamance lay yàq ci ay fruits biir Casamance mais fruits yooyu yëpp doon bu ko mën a récupérer. en même temps dëkk yi nga xamante ni train bi jaar na ci dëkk yooyu nga mën leen a wat d'accord président dafa lajj ci agriculture. Hmm. dafa lajj ci industrialisation. dafa lajj ci pêche. lajj ci pêche moy nga am 700 km de côte tey jii sénégalais yee nga guiné Bissau ñi ngi leen fay jàpp. Hmm. ña nga Mauritanie ñi ngi leen fay japp ba barki demb ay nappkatu Sénégal am ay problème ak wa wa wa wa ak ay ak wa ak wa Chine donc yooyu yep day wane ni je pense qu'au plan économique ci boppam hmm. président Macky Sall dafa échoué dafa échoué ca bu mu bu mu jël mbas mi làqatoo ci au plan économique ñi ngi wax relance économique man hmm. maa ngi leen di xaar si relance économique boobu ñoo ngi proposé ah hein, ay solution non proposé wuñ ndaxte gis nga dëkk yi sérieux yëpp hmm. avant ñiy déconfiné am nañ plan de relance bu leer mbas mi dugg fi boobu ba léegi nga xam ne yow récession nga jëm ñëpp xam ko au début nga ni ils ont annoncé 3%. Mhm. Ensuite, 2%, et 1%. dit on va vers 0,7% Mais, ce que le gouvernement, la relance économique, mhm. euh, sur la dette, nous avons nous problème. D'accord. Mhm. que nous si dette avant Covid politique parce que man nga leb mais bo lebee ba pare fan nga dougal alal jojo est-ce que aussi une infrastructure non infrastructure terre, BRT centre Abdou Diouf Diamniadio. Hmm. centre Abdou stade olympique bu Diamniadio pendant ce temps nga bàyyi agriculture alors que y nañu am autosuffisance alimentaire. Hmm. vallée du fleuve Sénégal hmm. rek amna un potentiel irrigable de 140 000 hectares. nga xamante ni mënoon na dundal Sénégal ba Sénégal di jaay ceeb. Hmm. ñooñu kon xamuñu priorité. d'accord mais nga leb. Hmm. alal jooju bi nga ko lebee ba pare nga dugal ko ci yoo xamante ni amul jeexital ci askan wi bu ñu ko dugaloon ci santé tey jii li xew roi Baudin du fa am. Hmm. roi Baudin lañ du fa am ay toilettes yoo xam ne soo ko xoolee mais danga naan lii hôpital la wala lu mu doon di toroxal doomu aadama boobu à niveau. je pense à alal au Sénégal, reconstruire notre économie. Mhm. J'attends le gouvernement, c'est un document de relance. D'accord. Mais suñu économie. La c'est dit mhm. ñu xam alal yi fan lañ ko wara la santé industrialisation waye dugal ko ci agriculture ci bay. d'accord Babacar geureum nañ la sante la temps bi xoj nañu tellement on devait discuter sur beaucoup de questions waro nañ wax ci justice bi mais on se rattrape après geureum nañ la sante la. man geureum na la sante na la maa ngi gërëm di sante aussi mbokk Dakar Actu yi nga xamni yépp ñu ngi ñu doon seetaan. Mhm. wasalaam. d'accord internautes du Dakar Actu geureum nañ leen yeen tamit sante leen jox leen dig dajé semaine bi di ñew ak i beneen invité seen émission Actu Débat jërë ngeen jëf.